Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. merci beaucoup Cheikh ok merci. This is Niakhareñ Lo aka from Fromarin Music le snapper des grands événements en direct de AIBD pour préparation de l'événement Mogued du ay foofu ay caaxaan événement bi nag ak nii yaa ma gën a xam ñu ngi jëm Chicago le 4 décembre incha allahu rabi. le 5 décembre ñu ngi jëm Ohio Ohio nag capitale ba mooy Columbus bu ñu foofu nag le 6 ñu ngi jëm Atlanta Atlanta jooju avec Mo Gates and rek sur le son Lo aka from From Arène Music spéciale médiatique. <laughs> xale mën lii de mag lii. njole i doon jama noir spécial New York City JFK on arrive Babacar Ndiak kuy xalam di ca jaayu Serigne mi Ndiaye Serigne njaag bakk bi ay boroom njaay waykat bi yal na ko yàlla defal jàmm Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information